dara xewut muy taalibe sëriñ Touba baayam Alaaji Limaan Nduur yaakaar si Hamadul Murtada sa waajur wu tedd wa ba baayam bu masan di màggal si bu ñëwee du dal cim néeg ci atub Seex Murtada balay fanaan loolu nag mooy li topp yuusu digganteem ak sëriñ Touba xam na sa digganteeg moom waaye mu yebal njabootug boppam baraan jiite ko ànd ak ay baayam alaaji Assane géey mu baax mi mi ngi nii toog ku ne xam sa digganteek moom li ko wax léegi bi mu nuyoo rek sa digganteeg moom rek na ku dis gor Abdoul Aziz mbay bokk ci kër gi ànd ak ñoom ak jiidi ñang mii nga xam ni yow sa sa bàyyi lañ ko tuddee yow la yaakaar Cheikh bi muy baayam ci kër sëñ Abdou Xaadir la bokk ak njaboot gi ñu àndal yépp nag góor ak jigéen mag ak ndaw sàng rek fi ma toog yuusu dafa daal di yebal Mara mu wooma mu ne leeralal Ablaye xam na sama diggante ak Cheikh Mamadul Bachir nee ko bu mu ci bàyyi dara sëñ Bachiru sama lépp def na ko nag na ma ko daa defee at mu jot bu màggal gi bu weer wi teroo mu jël njabootug boppam yónnee la dikkal boppam du teyam mu jël presse yi ma am yépp rajo yi journal yi télévision yi yépp nu indi ko Touba lu ñu bëgg a jàllale jàllale ko kon Youssou Ndour war na ni talibeb sëriñ Touba la moo tax tey mu ànd ak délégation yi yépp ñëw ci yow toog bëgg a jàkkaarloo ak yow waxtaan ak yow def ko na mu ko daa defee Abdoul Aziz sëriñ bi groupe Futurs Médias danoo ñëw nan ko daan defee at mu jot ñëw bi nu ñëw nag dan laa bëgg a wax li nu yëg bi ñu fi jógee daaw ba yokkute gi am ba tey jii ñu yokk lan doon def yokk jéego yi bu dee rajo bi El Hadj Assane Gueye directeur baa ngi nii toog télévision bi ñëw na site internet bi ñëw na journal bi ñëw na Mohamed Jo Diop a ngi nii ak sunu consoeur bi Marema Diallo Marema Diop ñu ñëw pour ànd ak ñu àndal ñëpp wan la ni daal télévision bi ñëw nañu pour màggal gi nee nañu borom kër gi yu Ndour bu ngeen demee dëppoo leen ak programme mu màggal ga lu ngeen fa fekk na ngeen ko def fukki yoon plateau yëpp dina am ci màggal gi rajo bi déplacé nañu émission yëpp ñëw fii indi ko Mbàkke ci Mohamed Diop Diop ànd ko ak personnel bi mu àndal journal bi dina def ay édition yu bari ci wàllu woowu site internet bi. commencé na déjà def li nga xam ne mooy màggal bi loolu nag li koy waral mooy boroom kër gi fii la gëm fii la am fii la gëm fii la am fii la gis gisee it ñaan goo xam ni yëg na ni ba mu ko fi amee yokk na ci la mu jëm moo tax mu ni mbooloo mi ànd leen ak sama doom muy directeur général ñu tëj presque bureau ba ndax jigéen ña ca nekkoon lépp ñi ngi nii toog pour wan leen daal ñëw nañu ci bis bi waaye sëriñ bi ñëpp lay ñaanal yàlla fanu gudd ak wér ndax nag sa taxawaay ci diine ji ak sa taxawaay sa kër maam yàlla na yàgg ba mission bi nga agale ko mën noo dem nag sëriñ bi te duñu gërëm ki nga xam mooy Cheikh Abdou miy toog beral nuyoo sëñ Abdourahman kii nag moom presque actionnaire la ci biir kër gi ndax coono bi mu ciy daj ñi fay fay ku sax dajunu coono boobu ci jëf ci wax ak ci taxaw bis bu nekk nag léeg-léeg mu ñëw def loo xam ni ku bokk ci yëfi rek ko bokk ndax ci la bokk ndax diggante biraan moom ak biraan mii benn bis doxul seen diggante lu dul ànd bu rafet ak waxante dëgg ak jubli sëñ Touba waaye sëriñ bi dama am ku ma bëgg seddeel muy alaaj jili ñang mii alaaj jili mii nag bu nee wi teru na léegi di liggéey TFM déplacé na léppam ñëw toog sunu bunt ci kër gi bokk na ci moom émission yu am yu ne nanuy wut ci nit ñu fay taxaw alaaj jilli mii moo ko dox kon sëriñ bi bu ñëwee fekk la fi fekk ko fi moom mii dinañ la seedeel ni lan ko doon doyee ci kër ga mat na ko sëkk dina def ba def luñ ko sant ndax ku du neloo guddi ci sa service du neloo bëccëg ci TFM programme fii am rajo bi yëpp mu ko toppatoo bu ñëwee ba fii nan la ko seddeel sëriñ bi yàlla na yàlla guddal fanam. barki dem na nga jóge Tiwaawan wax nan ma ko waaye sa jëf la ndax kat kuy jëri soxla na ngelaw sa taxawaay yàlla na yàgg waxoon naa la fii ni bu fekkee boo gënee nee na bi mu ñëw. sëñ Maodo si. sëñ Maodo si. bu bu Alaaji Abdou. nee na boobu ba léegi mi ngi koy jéem a jot. nee na boobu ba tey mi ngi dégg a jéem a jot. nee na ngir sant ko ndax sant ko. gërëm ko gërëm ko. dolli ko ñaanal soxna yaa sa fi waat ko. boobu mi ngi ñëw fii waxaat ko loolu. mu ni bu demee dina ko dégg. nee na sëñ bi nee na waxoon nañ ko waaye sëñ jëli waxoon nañ ko. télévision bi dina génn sëñ jii li waxaat na ko kon ñëpp a ngi lay ñaanal sëñ bi dañuy xam na ni jot gi manqué na sama nijaay El Hadj Mansour a ngi lay nuyu moom ci fii la bokk mooy wajur Youssou Ndour kon bu ñëwee ba fii mag Ablaye ñu nekk fi dañ jotal nuyoo ñu ngi lay gërëm di la sant yàlla na yàlla guddal sa fan te sàmm la yàlla wéral la ba sa mission jeex xam na ni fii nga toog am nañu la soxla ci ay kilifa moo tax ñu dagg wax ji waaye gën bëggoon noonu wax lu ëpp ci yoon wi dangeen ngeen a ànd ak kook dafa yaakaar Cheikh Mamadou Bachir jël doomam ak njabootam tudde ko te yow laa yaakaar dafa am solo lool muy ndoy baan léppam Cheikh Mamadou Bachir miy toog ak sëñ Abdourahman mii ngeen àndal di doomi di doomi Cheikh Mamadou Bachir bokk ci yéen waaye ñu xam ni ndoy baan dafa bàyyi ñépp tànn Cheikh Mamadul def ko bokk ci biir kër Cheikh Abdou Khadir guddi ak ngi bi moom it taxawaayam rafetlu nañ ko bu baax yow mii Cheikh Mamadou Bachir ibnu Cheikh Abdou Khadir yàlla fi yàgg te ànd ak wér ak mucc nee na defoon nañ ko daaw fekke ko ren yàlla nañ fi yàlla bàyyiwaat ay ati at bàyyi la fi ñu yàgg la fi fekk ñu koy defee nii itam mu ni tànk yi nga xam ne ñoo ni yëkkati tey tànk feddali kóllëre la tànk dëggal sunu position ci yoonu murit ñu def ko ci sunu ndigalu waajur muy président Youssou Ndour di kilifaam di sa xarit Cheikh Mamadou Bachir di sa wëllëre di sa taalibe nee na seen diggante yéen ñaar yaag président Youssou Ndour umpatul kenn ci àddina bi te nee na muy lu dëggu itam ndax moom da di murit saadix nee na ñun bokkuñu ci njimbu boo yoon wi de lépp luñ def ci yoon wi dañ koo war a def ndax alalu sëñ tubaa lañu nee na loolu mooy liy dëgg lii ñuy ñëw di def si fii tuuba ndigal liñ ci jot mooy nañ ko matale lañ defoon daaw nañ def lu ko raw ren te daan ko def tàmbali na sax commencé na mhm. kon sëñ bi moom nag muy biraan nee na seen diggante moom umpatul kenn sëñ Abdourahmane Mbacke mii mooy seede bi sa mu nee na cofeelam ci yow nee na mooy cofeelam ci yoonu murit rek ndax ñëpp ñu sant Mbacke seen maam ju tedd ji rek muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul kon sëñ Bass tey kàddu yi du gudd ndax ndax jot temps bi barewul te ñi la soxla bare na Mbàkke waaye nga xam ni Futurs Médias taxawaay bi mu war a am dina ko am ba mu mat sëkk nee na ay journaliste lañu nag lépp lu ñu xalaat loo xam ne doxale woon ko yoon nee na bu ñu hésité jokkoo ak ñoom nee na xam na ne ay professionnel ñoo fi nekk waaye xel moom du mat te diine ji itam dafa sensible nee na waaye mi ngi lay biral ni lépp lu yàq diine ji du ñun groupe Futurs Médias duñ ci dox lépp luy boole diine ji di boole xol yi di boole Sénégal suba ba ngoon ci loolu rek la groupe Futurs Médias di dox. nee na mi ngi gërëm ñëpp. di gërëm collaborateur am ñi mu bokk liggéey bi yëpp. ñii mu àndal ñëpp. ku lim juum. ndax bàyyi sa yitte yëpp. ñëw gunge benn nit. nee na ñu mënu leen fay. nee na directeur général neex na. waaye du moom rek nag moo yor liggéey bi. ñi nekk ci gannaaw ñëpp. xar seen tànk dañuy xar seen tànk tubéy pour lépp mën a yemb pour lépp mën a yemb donc sëriñ bi nee na kon sëñ bi nee na booy ñaanal Futurs Médias bul fàtte kenn ca kaw ba kii mujj bokk ci groupe Futurs Médias ndax benn njaboot la benn famille la ndax day dégg ñu naan ab murit ci yoon la bokk Futurs Médias ci dafa mel na yoon rek famille la nee na kon Mbàkke ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax saa yi ñu ñëwee. accueil bi accueil bi. bernde muy bernde yi. yi ak teraanga yi. lépp day ñëw lépp day mat sëkk. mat sëkk mat waaye ñaan yi muy ñaan. nee na waaye ñaan yi ngay ñaan itam. nee na moo tax groupe Futurs Médias di nekk leader rek. nee na Mbàkke nga yokk bu baax. incha allah ñu ngi sant bu baax sëñ Ablaye sëñ Cheikh Jili mi nga xam ni. Euh, Cheikh Mamadou Bachir daf ñu booleek moom. te liggéey bi mu taxaw ci taxawaay bu rafet. waaw jërëjëf. Mamadou Bachir ne mi ngi leen di delloo am yoo bu baax yéen waa groupe Futurs Médias ne ci ndigalul seen kilifa ne di Youssou Ndour Serigne Cheikh Mamadou Bachir ne mi ngi nuyu Youssou bu baax te di ko sant ne taxawaayu Youssou Ndour ci biir yoonu murit ne da koo feddali jàpp ko ne jàpp gi Youssou Ndour am na ci digganteem ak Cheikh Madoul Bachir ne te loolu kat mi ngi ko ci ñaanal bu baax a baax ne di nuyu doomam ji ngeen àndal di Birane Ndour ne di ko ñaanal Birane yàlla dëgëral la te sàmm la ne nu seenum nuyoo tey da koy teg ci loxol doomam di Serigne Abdourahmane Mbacké moom Serigne Kosso Astou Lo na nga xam ne maamam maam Thierno Birahim Cheikh Cheikh Ibra Fati nga xam ne moo doon jëwriñu Serigne Touba nee Cheikh Ibra Fati moo doon Serigne Bamba ci lépp kon bu ngeen àndeek Abdourahmane te waxtu wu ne ko gisee moom jottali ko seenu yëg-yëg kon yéen ñëpp mi ngi leen di ne Abdou Aziz dégg na kàddu yi nga wax waaye lépp kàddu yu rafet rekk la ne Cheikh Mahamadul Muntaxa bu defee loolu nañu xam ni seen Muntaxa dafa def warteefam rek ne baat boobu la ko wax ak wane nag nit ñi ni ñu war a doxee ci diggante kër yi ndax nee na loolu kat mooy li am solo moo di rafetal ak bennoo ak jàmmoo te muy dëgg nag ci ñépp ne kon loolu ne message boobu rek la ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha gën a jublu ngir ñu xam ni benn la ne sëñ di nuyu nag sëriñ Assane Gueye moom it nag sëriñ Assane sëriñ bi ne ca taxawaay ak mbooleem yéen délégation bi ngeen àndal yépp ne jili ñag mi ne yàlla def na moo ko boole woon ak Youssou Ndour mu dugal ko ci biir télé bi ne kon loolu ne ñoom ñëpp ak njaboot lañ ci moom ne Cheikh Abdou Ndiaye mii ne ki mu bokkal Baye Galas ne dafa xamul ko ci mag ñoom ñaar ne moom mooy magam ne mooy jëwriñam ca dëkkam bee di ak ñu ci des ñépp nag ne ndooy bànne nga xam ni moom taalibe ak njabootam ak sëriñ bi ne ak njaboot yépp rek ne bàyyiwul kenn de ne mi ngi leen di nuyu bu baax a baax ne wax ji nag du gudd ne nañ leen ko daa waxee rek yéen kët seen jëf dafa jiitu seeni wax ne ba ñu dalee tàmbali liggéey bii ba léegi at mu jot kenn du leen soññ yéen fay jiitu ba noppi mujj fi ne kon nag ne sëñ Abdoulaye danaa wax ni ku ni la jàkk bu ko ni geesu ma yéen nag seen jëf noonu la taxawee ci màggal gi yéen a ngi ciy góorgóor li ngeen man ak li ngeen mënut sant nañ leen bu baax a baax ci turu Cheikh Mahamadul Muntaha mi borom liggéey bi te liggéey di def lépp ne sëñ Muntaxa mooy seere si ndax mooy borom liggéey bi neem ñoom ay ndaw rekk lañu waaye sant nañ leen bu baax a baax gërëm leen ci turu yoonu murit di leen ñaanal itam kër gi gën a barkeel ndax màggal gi moom Sëriñ Tuubaa ci boppam moo ci daane woon lam ci daane wax te lam ca waxoon ne ko defit faaw ci ku gëm moom lay jëriñ waaye képp ku fi ñëw jëf bu déwénee kenn du la ci soññ ndax yaay gis la ci tax a soññ sa bopp ne ñi fi ñëw ñëpp tamit seen njëriñ la ne sëñ Babacar Diakhaté daa waxoon sëriñ Tuubaa ni ko yaa ma gënal sama ndey yaa ma gënal sama baay sëñ Tuubaa baa ko Babacar loolu kat kenn du ko wax ndax sa sa baay lañ la mënal li ma la mënal buñ la ko mënaloon kon du ma la fi gis kon doo fi ñëw kon da ngay wax ni yaa gën ci man sama ndey yaa gën ci man sama baay kon sëriñ Tuubaa wax rek allahu yansurini wal xalqu تكبهني في البر والبحر saa nafsin bila dara ne yàlla ci boppam yàllaa ko dimbali mbindeef yépp topp sëñ bamba ne sëñ bambay borom njariñ lu àndul ak lor lu àndul ak benn lor sëñ Cheikh Madou Bachir ne loolu kat ne résultat bi dafa leer ne ku ba sa xel sëñ bamba benn bis lopp téeméer at wala lu ko jege ku sox koo ci yow sa teraanga di yokku loolu moom mbirum sunu borom rekk Serigne Touba te loolu kat Cheikh Madul Bachir ne dañuy fan ne kër seexu Serigne Bamba boo dem ka mujj rek Serigne Touba kon Serigne Touba jëfal ko ak liggéeyal ko moom ku yàlla defal tawféex. ba xiirtal la ci doo ko rëcc ñu ngi leen sant bu baax di ñaan ngeen yàgg fee ñëw te kër gi ngeen nekk itam ne kër gi yàlla na gën a barkeel ba li ngeen ci yéene moo yàgg waaye fii daal moom sant nañ leen fi bu baax gërëm nañ leen fi ne la ñu séntu ci yéen ak li ngeen ci war a def léegi ngeen def ba def lépp sax kon jërë ngeen jëf. nu mu koy ñaan balaa muy ñaan. balaa euh, mu ni daf lay ñaan balay ñaan bala ngay ñaan. ne ko damaa aalu. ne bi muy wax ne ko dafa aalu nag. ne ko. ne. dañuy waaj a sanc benn imprimerie. dañuy waaj a sanc benn imprimerie. ne jël nañ juróom fukki million. ne jël nañu juróom fukki million. def ko ay xasida sëñ Touba. def ko ay xasida sëñ Bamba. jox ko addiya université. jox ko addiya université. bu ko defee nga teg ko ca loxo. nga teg ko ci loxo Cheikh Mahamadul Muntaxa ñu barkeeloo ko ci biir université bi ndax université bi xam-xam rek ak jàng ak jàngale ko tax a jóg. wallaay wallaay. ndox mu bari ak masque yu bari ak 3000 masque ak ndox waaw indi masque yi de baax na waaye boole ci ndox ak nit baax na nag ko ñëpp def.